jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin amaalu aju ci eh, gént koo xam ne dafa yor oto mu paan gént gis ku yor oto mu paan nag loolu jëmmi gàllankoor la wala jafe-jafe boo xam ne dañ ko won aji gént ji wa ilaa muy nekk loo xam ne day ñëw ci moom ci ay mbiram moo waral ci gént gi ba mu yëgee ne waa ji daa paan mu puus ko ba mu àggal mu daal di yëkkatee aw lim ci xaalis daal di ko koy jox ala kulli xaalin loolu baax na danay leen lu jafe-jafe yi bari wala lu gàllankoor yi bari yàlla mën na dogal nit ki mën na génn génnaat ci jàmm muy aji gént ji walla ay mbir yuñ koy wan ci ay nit ñoo xam ne luy ñëw lay doon moo tax ala kulli xaalin oto bu paan moom ci gént mbir yu yeex wala gàllankoor boo xam ne mën naa sotti waaye dina xaw a jafe incha allah rabbi bu dee këyitu xaalis nag ñu jox la ko baax na day teg tegtale yaakaar ji sotti incha allah eh, mbokk yi mën nañoo jël numéro 78 443 75 27 bu dee ñi nga xam dañoo aajowoo firi gént wala seet wala listixaar bu dee firi gént nag ku woote wala nga yónnee message vocal da nga bàyyi xel dafa am fay incha allah